Oh, Pape Nar Fall gannaaw bu ñu la nuyoo. gis nañ ni euh, vendredi passé yéen a ngi woon ci mbedd mi fii ci géej waaye di manifester. lu waraloon boobu les manifestation waaw ah, balaa boobu damay nuyu waa Sénégal encore di nuyu sama parti di leen féliciter di leen gërëm di leen sant ci liggéey bu rëy bi ñuy def di gërëm sama ñaari jigéen ñi toog xam ne vraiment boo gisee ma ànd leen vraiment dañoo bokk ci man nekk fii ci commune bi am na sax ñeneen ñu waroon ñëw mais xëy na ñu ngi ñëw ci yoon bi muy awali xam ne moo jiite jigéen fii ci commune Sam Notaire di euh, Anta Diop xam ne moo bokk ci ñu yor organisation fii su commune bi nekk ñu engagé nag ñu bëgg président Karim moo tax ma ma wol waaw li woon vendredi vraiment il est temps que ñu wane suñu bopp pour le président Karim yàgg nañ ko def nag yàgg damay yàgg nañ ko def ñu résoudre Karim bañ jàppee Karim ba tey fii géej Géejawaay ku ñu xam xam ma xam Naar Fall xam Baba Crass xam nañu fii retour Karim dañ nañ si lu nekk mais démb. vendredi dañu dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko gën a jëmbal pour def benn marche bu mag mais man def naa ko man en personne fii def naa fi mitit yaay Karim def nañu mitit euh, Babacar def fi ñaari mitit ñoom day Ndeye Rama def nañ fi mitit fii ci géej Guédiawaye pour lépp président Karim ak docteur Karim mais ba bërki démb bi dafa spécial dañ ko def malgré les moyens on daal dans l'opposition mais Sénégal ñoo ñu wuy Sénégal moo ñu wut mu nekk lu extraordinaire si félicité nag tous les participants ñi ñëwoon vraiment jóge partout partout partout ñu ngi leen di remercier di leen gërëm di leen sant ci manifestation boo xam ne parti bi kontaan na président Karim kontaan na ñëpp kontaan na. waaw lu tax Karim Wade euh, war a ñëwaat kut kut pour yéen. noo xam nga il est temps te ñi ngi jëm 2024 te Karim damay wax ni waxuma day bokk rek Karim mooy nekk cinquième président du Sénégal incha allah moo tax dafa war te kenn moo ko téye muy président Macky Sall na ko bàyyi mu ñëw. wax naa ko waxat ko wax ko na ko bàyyi mu ñëw moom rek boo ko téye kenn téye ko na ko bàyyi na ko jox na jël article boobu mu article 31 boobu mu dugal na ko dindi ah na ko jox parce ay ay ay droit ba mat sëkk mu ñëw ci réew parce que dañ ko soxla. bi mu demee ba léegi yàgg na euh, terrain bi encore am na ay gan yu bees est que yaa ngi sóoraale ñooñu. noo xam nga Karim Karim bokk ak ñu bari Karim dafa Karim Karim Karim Karim dafa am lu kenn amul Karim dafa am benn benn noyau dur politique boo xam ne dafa judd fekk ko fi. xam nga man tey su ma doon def politique ah ba yàlla def ma jóge fi sama doom buy bu fekkee dafay def politique day commencé day commencé mais Karim dafa fekk papaam yàlla na ko fi yàlla bàyyi defal ko benn noyau dur bu dëgër mooy parti démocratique sénégalais xam nga gars yi damay dégg ñuy wax naan Karim nan la mën a nekkee fee di kii.